asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi internet yi ñu suivre ci Leewtoo TV fu ngeen mën a nekk rek si àddina bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko saaku si comme di ñaanal rek comme ni ñu ko di ñaanal saa su rek yàlla na corona bi démarré ma dem ma dem comme ñeneen mu ngi wàññeeku yàlla na gën a wàcc ba jeex ba jeex fépp si àddina bi nuyu nañ ñëpp ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm mais nag du ma mën di fàtte mukk di nuyu waa Petersen rawatina jib seen du ma ko fàtte parce que fu may génn nii des fois moom lay doon kon maa ngi koy béggee tey nag dañ toog ak koo xam ne mooy Mbaye Jacques Diop bu ñu ko waxee nag moom moo yore lépp lu jëm ci wàllu comme ci ministère des sports maanaam communication boobu moom lañ ko dénk ñu fas yéene séq ak moom waxtaan ci lan mbirum CNC bi dégg ngeen demo Aline Sarr la 31 am na lu ñu leen waxaloon ñoom waa ministère moom mu génn ci loolu intervenir ak yeneen yoo xam ne am na fa ci làmb ji fan yi te yaakaar naa nag moom itam làmb ji am na lu baax a baax lu mu ci maîtriser am na loo xam ne nag olof a ko wax yàgg ah net si si ñu boroom la dàqe am na yu bëri yoo xam ne tey dina war a mën a leer fii ci suñu diggante ak ki nga xam ne mooy Mbaye Jacques Diop mi nga xam ne lépp luy comme foofu moo ko géré Mbaye Jacques maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw jërëjëf euh, Babacar ñu ngi lay nuyu di nuyu d'abord euh, borom kër gi muy Pape Thialis di suñu xarit. di nuyu aussi ñoom Massar euh, ñoom Diaw yëpp di nuyu ak équipe bi nga àndal ñoom Ndey Kumba mhm. ak ñoom Aïssatou Faye ak tout le monde parce que kër gi man ci laa bokk bi ñu koy sànc donc fekke naa ko donc c' était un plaisir aujourd'hui mhm. euh, ma ñëwaat aussi di feddali kóllëre mhm. parce que nit aussi amoon lu dul sax ay kóllëre amoon lu si ay am di jàmm di aussi nuyu tous les internautes yi nga xam ne ñoom ñooy suivre Leewtoo TV parce que Leewtoo TV a fait son chemin maintenant presque pratiquement trois ans mm-hmm. je pense que trois ans c'est c'est un bébé qui est en train de grandir et gis nañu aussi que liggéey bi ngeen def ci làmb aussi ñu ngi leen di ñaanal yàlla combat yi ngeen dëgmal yi nga xam ne moom ngeen taxawal mm-hmm. yàlla teg ci loxo ndeyjooram ba mu doon loo xam ne daal ndam la ak euh, weesu fu ngi seen njort. amiin amiin am na solo mi profité tamit du nuyuwaale ministre des sports monsieur Matar Ba parce que bu ñu toogee ak Mbaye sax c'est normal moom ñu nuyu ko parce que mooy eh, liggéeyandoo ak moom yow rek comme comme ni ñu ko xamee euh, Mbaye sax fi may ñëw ak yow rek ci. Eh, balaa may dugg carrément ci làmb ji en tant que ku nokk ministère des sports yore com bi ak li nga xam ne moom mooy pandémie bi ñëw jàpp àddina bi tey eh, maanaam loolu lan la coûté sport bi ci Sénégal tey boo ñu ko doon tënkal. waaw jërëjëf maa ngi lay gërëm di la sant di nuyu d' abord suma kilifa le ministre Matar Ba di nuyu aussi tous les collaborateurs du ministre que ce soit le secrétaire général le directeur de cabinet les directeurs et chefs de service tous les membres du cabinet euh, di wax rek nekk euh, mbas mi euh, bi mu feeñee au niveau du Sénégal ministre des sports dafa anticiper parce que déjà moom dafa jóge benn conseil de ministres rek anticiper demander à ce toutes les fédérations puissent prendre les dispositions par rapport a cette pandémie-là ñu toog mu xool ne affaire bi ça prend de l'ampleur mu la veille un vendredi mu woote toutes les fédérations pour peut-être aller vers une suspension ci le président Macky Sall convoqué xam nga li ñuy wax le conseil euh, présidentiel sur euh, la santé pour discuter un peu ci le ministre ñëw xam ni jàngoro ji fu mu toll war nañu mën a tey au moins suspendre toutes les activités sportives bépp boobu sax amoon na làmb làmb ji dañ ko mujj arrêté amoon na basket amoon na handball amoon na football donc ñu arrêté ko loolu moo lay wan ne ministre donc waxtaan ak njabootam li nga xam ni ñoom ñooy as ñoom ñooy le mouvement sportif ñu déggal ko ñëw wuy si ko au niveau du ministère ñooñu tam ànd ak moom bi ñu àndeek moom aussi ñoo ñu aussi seen xalaat rafet trop ñu ne ñun aussi duñ ci dellu gannaaw duñ ci dellu gannaaw mooy duñ ci mooy dañuy xool ñun aussi nu ñuy jàppale état bi. Mhm. nu ñuy jàppale aussi le ministère de la santé à travers euh, peut-être euh, des gestes yoo xam ne de solidarité pour accompagner le chef de l'État euh, en tout cas dans sa lutte contre cette pandémie-là. ñu def ko aussi cotiser ñu def xaalis ñi mbër yi def nañ ci dara footballeurs yi handballeurs yi en tout cas toutes les cinquante neuf fédérations ñëpp contribuer pour au moins. que cette lutte-là, que cette pandémie-là puisse au moins être résorbée ou bien disparaître ou bien éradiquée pour de bon. yàlla def na nag boo xoolee am na ay jéego yu rëy ci wàllu woowu aussi ministre de sports bàyyiwul ay njabootam parce que chaque fois mi ngi diisoog ñoom mi ngi waxtaan ak ñoom metti na nag parce que tey nga xool ne activité sportive amul amul demuloo amoo foo jëm. amoo foo kii mais dafa am une situation bu ko def mooy une situation de de de une situation en tout cas de de de circonstance boo xam ne cas de force majeure la mooy cette pandémie là mais n'empêche aussi que dans la vie active dans la vie courante euh, du point de vue administratif les gens continuent quand même avaquer à leurs occupations. C'est vrai qu'il n'y a pas peut-être la pratique du sport dans les terrains et autres, mais sur le plan administratif, les gens continuent à travailler parce qu'au niveau du ministère des Sports, nous sommes hein, parce que aussi, nous, le ministère des Sports est en train de travailler sur un, ce qu'on appelle un, un, schéma de relance. Pourquoi nous nan une activité, nous avons relancer Parce que, ci tu vois, aussi, nous avons le ministère des Sports, nous la pandémie. jàppale wuñu pandémie bi bi mu jotee jàppale wuñu les impactés les fédérations fekk boobu le ministre des sports monsieur Matar Ba euh, ci xelam ci xalaatam ak ci générosité mi ngi liggéey xool ne budget amul ay compétition mu xool dem discuter ak le chef de l'État discuter du chef de l'État jox ko instruction mu dem discuter ak le ministre de finance ñu xool nan la ñuy jàppalee le monde sportif. ba am au moins un milliard sept cent xaw ma un milliard cinq boo xam ne dañ koy séddale ñi nga xam ne moom mooy moom askanam mooy en tout cas le mouvement sportif. loolu leer na léegi nag euh, loolu nga am na solo léegi ñu ñëw directement si li nga xam ne moom mooy làmb ji mel ni kon làmb ji moom loolu tamit laal na leen laal na promoteur yi nga xam ne jotoon na joxe génn seen ay avance jox ko ay mbër ñi jàppoon ay date war a tëgg làmb ak yu mel ni ki noonu mel ni ki ñooñu bi loolu mbër yi génne nañ seen ay participation joxe ko gis nañ promoteurs yi def ko am na ci waa làmb ñu bëri ñu ko def ñooñu tamit ban soutien la leen ministère amal ak état après bi ñu defee loolu ba pare parce que génnoon nañ seen alal joxe ko muy mbër yeeg promoteur yeeg ñu mel ni kii moom xam nga ministre des sports souvent soo déggee sax dañu naan bu njëkk dañu naan gis ministre ne ministre football la mais tey Matar Ba le ministre des sports Ba dañ koy sax dàkkalee ministre u làmb parce que askanu làmb lay gën a diisool soo xoolee bi mbër yi ñoom euh, les les lutteurs en activité bi ñuy dem di joxe ji seen. Euh, euh, don seen seen seen ay jàppale ci pour Covid bi ministre des sports dafa ànd ak ñoom. gis ngeen aussi les sages de la lutte. bi ñu ñëwee ministre accueillir na leen. Mm-hmm. li ñu joxe ñu dem jox ko le ministre des finances monsieur Abdoulaye Daouda Diallo loolu moo lay won ne c' est vrai que ñooñu ils sont impactés. mbër yi impacté nañu. promoteurs yi impacté nañu ñeneen ñi yeneen kuréel yi impacté nañu mais ministre aussi bàyyi na xel ñooñu. parce que nee na tànk moom mi ngi nekk ministre de sports njabootam képp koo xam ne am na tiis wala am na lu la metti dina la taxaw parce que ci njabootam nga bokk. waaw lu mu metti metti dina taxawu njabootam. Mhm. te je pense que euh, promoteurs yi euh, diisoon ak ñoom. les lutteurs en activité diisoo nañu diisoo na ak ñoom tout comme aussi les sages ak les les anciennes gloires loolu moo lay won ni donc moom comprendre nga amul xaar ma yàlla ci benn sport. parce que dafa lay wax chaque fois que euh, toutes les comment toutes les disciplines sportives sont d'égale dignité donc ñëpp dañu leen war a jox seen cër. xëy na impact yi ñoo dul bokk xam nga impact social yi ñoo dul bokk mais ñoom ñëpp ñoo bokk benn dignité parce que ay fédération lañu ay kuréel lañu ay ay ay ay personnalité ñoo ko jiite. am na solo léegi foofu la ñuy rebondir rek continuer ba tey si si si mbir mu mel ne ki noonu mu mel ni mbirum docteur Alioune Sarr fi mu nekk nii ay weer rek ñu ci coow daan ci coow sax ay at dafa war a dem bañ toll tey ci faasu ne le octobre ci la mandaam di jeex su jeexee. dootul laajaat wala dootuñ ko fi tegaat keneen la ñuy wëri teg ko fi mu mel ni loolu kon yéen waa ministère yéen a ko yore ak le ministre des sports ci loolu tamit dégg nañ ci ay xibaar kani am na ay tur yoo xam ne seen nañ kani tànn ngeen leen mën nañ ci cité Mohamed Ndao Tyson ci lutte avec frappe euh, Yékini ci lutte simple booy Kaïre rek Tapha Guèye ci lutte olympique loolu tey loo ci mën a leeral sénégalais xam nga loolu d' abord je pense que ministre de sports tontu na ci ci ci ay journaux yu mel ni euh, les échos ak euh, source A yooyu yëpp c' est de la spéculation. des fois les gens ils le faux pour avoir le vrai mais defe naa ne nit ki soo buggee information wala nga dégg information euh, dafa am ay règles élémentaires de de de de de journalisme maanaam da nga war a dem à la source yow Mbaye Jacques xam nga téléphone am xam nga téléphone ministre mooy koo xam ne ministre bi kuréelu sport yëpp am téléphone ku ko woo mu jël la bu ko gisulee sax après mu rappelé la donc les gens auraient dû aller vers information demander ndax li ñuy wax dëgg la wala dëgg mais lépp li ma ci mën a wax li ñuy wax yëpp c' est de la spéculation. Hmm, amul daal amul loolu yëpp amul parce que bés bu ministre waree et puis tey waruñu sax wax départ Alioune Sarr wala parce que ba léegi 31 octobre jotagul ñooñu ils sont en cours de mandat donc moi je pense que tey bu ñu fekkee ne dañu jox une lettre de mission au CNG ba léegi le 30 tey la lan tey ñi ngi ci mois de septembre. donc loolu moo lay woon ni dese na leen au moins plus de 45 jours yeggaguñu sax ci 15e nekkaguñu sax dans la première yegg yegg jeexalaguñu sax première quinzaine du mois de septembre alors que ñi ngi jëm 31 octobre mais ngir yàlla war a suur yi dañu war a sax jox ñooñu cër bàyyi leen ñu liggéey seen liggéey. mais bu fekkee ni chaque fois la nit ki war na dem alors que nit ki warul dem wala nit ki war na dem ak yooyu loolu ñoom du seen ay prérogative mais est-ce que yéen da ngeen di xaar ba ba ba ba mu xëy xëy dem rek ngeen door a indi nit. non kenn waxu kan moo ne Alioune Sarr day dem wala kan moo ne demul. kon du dem non loolu moom mënu ma la ci wax dara parce que xam nga lu tax loolu yëpp ci pouvoir discrétionnaire ministre Matar Ba la man li ma la mën a wax mooy que tey CNG. ñi ngi en cours de seen mandat jeexagul le 31 octobre lay jeex le 31 octobre nag bu jeexee. décision bi ministre di jël kenn xamu ko man xaw ma ko keneen xamu ko parce que loolu c' est le pouvoir discrétionnaire du ministre des sports monsieur Matar Ba. mandat bi du ngeen ko renouveler. loolu déggoo lu ma la wax déggoo lu ma la wax xam nga man. man dama am expérience dans le mouvement sportif. tant que mandat jeexul munoo goo xalaat naan da ngay renouveler wala da ngay def nit et puis quoi qu'on puisse aussi il faudrait ñu am le courage et l'honnêteté de de de les gens du parce que def nañ fi liggéey boo xam ne liggéey bu màcc ayib donc dañ leen di remercier gërëm leen sant leen mais mënuñu chaque fois nga bëgg nit ki war a dem parce que pourquoi nit ki war a dem. non est-ce que non waxuñu ci war a dem mais fi ñuy mooy xëy na bu fekkente ne jeex na bu demee kii jël place am. waaw ki war a jël place am loolu bu bu demee. wala bu demulee tànn ba pare. loolu déggoo lu wax ba léegi de déggu ma de man maa la ëpp expérience sànq ba léegi yaa ngi may dugal yaa ngi may bëgg ki dugal mais maa ngi lay tontu nee naa la. su waree dem ministre mooy jël décision su waree toog ministre mooy jël décision pour renouveler ko. loolu lu leer laa la wax. voilà loolu ministère koy def daal. loolu ministre bi ci boppam monsieur Matar Ba. Uh-huh. moom moo am pouvoir discrétionnaire boo xam ne pour tànn yow Babacar dama lay tànn wala jël naa Ndey Kumba wala jël naa Caalis loolu ci moom ci ay waru garam la ci ay pouvoir la ci ay prérogative am. Mm-hmm. waaw mais amul benn askan boo xam ne wala mun nga dem dans la presse di def lobbying pour influencer. Mm. waaw parce que ministre c'est un homme di sérail mouvement associatif la bokkoon nekkoon na président kuréel goo xam moo fi gën a rëy muy ONCAV. ba pare tey mu nekk ministre des sports pendant six ans amul kenn ku fi te nekk donc am na expérience boo xam ne am na mët mët boo xam ne nekk na kilifa goo xam ne su waree jël kenn du ko dicté lu mu war a jël. léegi su ma ñëwee am na ay tur yu ñuy avancé ba tey parce que dum si jógeegu ay tur ñu ngi koy avancé. loolu déggoo lu ma la wax ay spéculation la ñoom ñooy avancé tour dama lay jox benn benn benn benn mbir rek laa lay jox. waaw gis naa ci benn euh, sunu làmb ñu ne Kayre ak Moustapha Gueye ñoom ñooy yor. lutte gréco-romaine lutte olympique balaa nga xayma da nga koy def national. directeur technique national kon lan mooy prérogative am su fekkee ni directeur technique national moom mënul développer la lutte olympique ñu dem di jël ay mbër pour jox leen ko loolu moo lay wan ni sax xel ñaaw ba pare le lendemain nga ni Tyson président le lendemain nga waxaat vice président. donc loolu c' est de l'ineptie excusez-moi du terme entre guillemets. mais est du ñoom dañu am seen ay sources yu leen yu leen permettre. ñu ah, amuñu source. ah parce que li ñuy wax dëpp lan lañu fi waxoon Djibril Seck waxuñu fi parce que boo amee source dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg doo da ngay cohérent ci sa démarche da ngay cohérent ci sa ay propos da ngay ci sa ay écrit mais tey nga ni Tyson président suba nga ni Djibril Seck gannaaw suba nga ni waat euh, Yékini gannaaw suba nga ni waat Tyson vice président mais attends nit il faut être cohérent man journaliste la j'ai pratiqué la presse pendant plus de vingt ans mais su ma doon dem sama source damay dem à la source de la mooy wóor ni source bi c'est une source digne de foi ñun ñoo leen jiitu ci métier bi quand même tomber dans le piège de sunu lamb. voilà. kon pour yow daal ay piège la quoi. non du question piège c'est-à-dire ñoom peut-être que c'est par rapport à leur ligne mais ba léegi incha allah bés bu ministre waree jël décision di ngeen xam ni kon ñoom li doon wax yépp dara taxawu ci te bu boobaa. mun na sax décrédibiliser ñoom seen organe te ñaanuñu ko yàlla parce que suñu làmb au moins quoi compétir ils ont grandement contribué à la bonne marche de la lutte au développement de la lutte. waaw bu am solo la ci dëkk bi. il faut ñu wax ko. te man ñi fa nekk suma ay xarit lañu sama ay am di jàmb lañu <laughs> sama ay kii lañu mais su fekkee ne nag aussi dañu def ay des déclarations yoo xam ne amul mais attends déggoo man dama amoon benn professeur de droit weddi ko xam nga lu tax weddi ko suba ndey Kumba Faal mun na def benn thèse am wala mémoire am di def recherche ne ah lii de sunu làmb bindoon na ko wala lii de Leewtoo waxoon na ko suñ ko weddiwulee danaan dëgg la mais suñ ko weddee ñu ne ah lii kat ndey Kumba bindoon na ko wala waxoon na ko mais Mbaye Jacques démentiroon na ko donc su boobaa dinañ xam ni am nañu ay éléments irréfutables voilà parce que loolu aussi mooy information. mooy information la am na solo mu mel ni ba tey kon loolu leer léegi kon mu jógee foofu ñëw nag ci làmb ji. Euh, coowul combat yi ñuy taxawal pendant corona bi ay promoteurs yi taxawal Pape Thialis Faye ci la bokk taxawal na fi ay combat wala de si wóol na fi ay combat Gaston Mbengue def na lu mel noonu waa Vox Arena def nañ lu mel noonu Baba Diaw Champ Production def na lu mel noonu promoteurs yooyu taxawal ay combat ci pendant pandémie bi di am loolu ay risque la ci ñoom wala du ay risque wala yow noo ko gis en tant que sénégalais mais tamit ku yëngutu ci mbirum sport. non d'abord parce que loolu day dundal discipline. ak waa GFM di fàtte def nañ lu mel noonu. parce que loolu day dundal discipline. Mhm. tey par exemple je prends l' exemple de Gaston wala Pape Thialis ñu jël seen xaalis xamuñu pandémie fan lay kii ñu dem jox ko ay mbër loolu def naa ne gëm yàlla ci la bokk. la lutte a été exportée partout que ce soit en France que ce soit en Italie que ce soit aux États-Unis même en Espagne loolu moo la yoon ni sunu mbër yi sax dañuy dem foofu di bëre. Mhm. te ñun. fenn la ñu raté le tournant de l' le tournant de l' l' internationalisation de la lutte mooy bi Franc ñëwee di bëre fii foofu les gens devaient avoir le réflexe. Juan Juan waaw Juan. l'espagnol waaw fan Juan Fran la waroon nañu am expérience ñoom. wala waroon nañu am au moins réflexe su ne kii di ñëw ñun war nañu mën a def au moins un partenariat ou bien une des accords bilatéraux ou bien un accord bi euh, ça dépend convention wala lan les gars de de de Gran Canaria. pour di mën a développer la parce que loolu waroon na mën a. au moins jouer beaucoup sur ce qu'on appelle le tourisme culturel et sportif mais malheureusement c'est là on a a raté le virage. am na solo mu mel ni wax nga loolu nga wax am na solo trop euh, ba tey dañuy continuer foofu fi may duggaat tamit mooy promoteur yooyu nga xam ne ñooy tëgg joxe xaalis comme ni nga ko waxee ay jàmbaar lañu tey bi ñu joxe xaalis nag ba pare wala bi ñu nee nangam dugg na indi na ay coow mën na ci cité la coow Gaston Mbengue mi nga xam ne coordonné nga ko loo ay ay at coordonnateur Gaston production diggante ma Gris Bordeaux coow loolu dal ci waa GFM Mao Cissé ma jël ko moom itam mu wax mu démentir lu mel ni ki noonu coow yooyu noo ko gisee Mbaye sax xam nga làmb ak coow ñoo ànd làmb ak coow ñoo di nga signé ak mbër contrat sax di xuloo ak moom. Hmm. souvent ça peut aussi faire l'objet d'une bonne promotion pour la lutte. kon Gaston Giri promotion ngay gis ñun tëgg nañ fi Gaston tëgg na fi làmb. Ah. ak Balla Gaye Baboy. Ah. Balla Gaye ne bëriwul làmb ji indi coow mais làmb ji loolu woo ko jaay. fekk boobu Double Less moo ñëw man ma toog Gaston toog ak euh, Max Bergan ak euh, Babou ñu toog kër Gaston Maris ñu signé contrat bi ak euh, ménagère u Balla Gaye dem si yàlla Iba Iba Dieye. waaw Iba Dieye yàlla na ko yàlla. Balla Balla Beye bi ñu signé contrat bi 4 heures 4 heures demee mu dem mu dem mu dem groupe Futurs Médias ne ne ne moom Iba Dieye non moom Balla Gaye mais looloo jaay combat bi ñoom ñaar. te boobu signé nañ ba pare. waaw fekk boobu ñaari ménages yi signé nañu mais moom mu ne du bëre donc loolu souvent dafay bokk ci promotion la Gris ak euh, euh, Gaston ce sont des partenaires partenariat win-win la kii dafa yor marchandise am kii yor xaalisam ñoom ñaar war nañu mën a déggoo ci ay kàddu te nit ki aussi da ngay am benn ngor soo xasee ba jël engagement ba jël xaalis jàmbur war nga mun a respecter li nga def. mais doo jël xaalis jàmbur ba dem ne delloo ne la ko da nga koy delloo doo boo ko delloo da nga xam ndax du am ay dédommagement am wala loolu yow xamoo li nga signé wala xamoo accord yi nga jël déjà lui il confirme que il a pris les 10 millions même bu fekkee dañ ko ko jox 1000 francs 1000 francs wala 100000 maintenant respecter tes engagements parce que aussi loolu moo lay wone mbër yi dañu war a am kilifa war a am ay responsable mais est-ce que du ñaari parti yëpp war a respecter engagement est-ce que tamit Gaston amul engagement yu mu waxante woon ak Gris moom tamit wala bon xam nga man engagement yi xaw ma nu mu demee parce que fekkeewu discussion bi mënuma tey spéculer sur la base des engagements lenn laa mën a xam Gris Bordeaux nee jot na 10 millions Gaston nee jox na ko Gris nee daf ko ko jox millions joxaat ko ko c' est parce que Gris Bordeaux. waroon ko dolliwaat 15 millions. waaw waroon ko dolli 15 millions. Ah. mais gas li mu wax aussi dans sa déclaration nee na moom xamagul fan la làmb ji jëm parce que bëggoon na ko def sax mais xamatul làmb ji fan la jëm aussi là aussi peut-être il est dans son droit maintenant ñoom ñaar ay partenaires lañu parce que Gris yàgg na bëreel Gaston Gaston yàgg na engagé Gris donc ñoom waruñu sax di épanché wu dans la presse pour di wax ay problème mu 10 millions wala ay man quelque part aussi Gris laay condamné xam nga tax ma koy condamné Gris am na président muy Abbas Ndoy nit ki da ngay am kilifa Balla Gaye Aziz mooy kilifaam Aziz moo koy defal lépp doo ko déggal coow amaa Balde doo ko dégg muy coow kenn parce que bu ñuy jël xaalis mais su fekkee ne yow mbër mi yow yaay jël sa xaalis ba pare léegi nag tu te retrouves dans devant le fait accompli <laughs> mais attends su boobaa aussi doo am défenseur la preuve affaire Gris Bordeaux déggoo ci kenn lu dul Khalifa Dia le manager nga ci dégg déggoo ci Abbas déggoo ci benn responsable Fass. est-ce que Baga Abbas nekkul ci suuf di ko di dox lam ci war non du nit kooku Abbas du nit boobu. man je connais bien Abbas Abbas képp ku ko xam-xam ni kilifa la il est responsable. Hmm. Abbas waaw kilifa la responsable. <laughs> waaw loolu loolu baax a baax. waaw mais Gris itam yaakaar naa ne ak moom fi mu toll tey ci lam ak xam-xam bi mu ci am ak ni mu ko pratiqué est que tamit Gris dugg ci xam ne du dugg ak ay kilifaam. Gris dafa bokk ci benn structure muy écurie Fass tey footballeur yeeg yenn kii Yékini boo ko daan gis daraan dem rek signé contrat mais am na ñu koy négocier ci suuf yenn mbër yi mbër yi structure yu organisé wu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg Tyson kenn mosu ko dégg ci affaire yi. lu tax tamit mu attaqué ci waa GFM. bon loolu nag loolu loolu je ne parce que je n'ai pas discuté je ai pas discuté honnêtement avec Gaston. yéen ñaar boobu ba tey waxtaan ngeen ci mbir yi. non ñi ngi waxtaan mais li ñuy waxtaan aussi du génn may waxtaan ak moom du génn ci biti. Hmm. parce que suma mag la suma kilifa la su ma waree suma ma su ma jàddee su ma su yoon mu mu redressé ma. ok donc suma kilifa la même bu may waxtaan ak moom du génn ci biti. parce que waxtaanu néegu biir lay doon. néegu biir lay doon Euh, mu mel ni tamit Pape Thialis Faye tamit wax nga ko léegi Leewtoo ci ñi ko sos nga bokk gis nga ko moom tamit mu taxawal ay combat rawatina Tafatine Boy Niang Garga Mbossé ak Sa Thiès déclaré woon nañ ko foofu tamit dégg nañ waa kër Garga am ñu génn ne ñoom ga Pape Thialis Faye lam leen waxoon defu ko wa bëreelatuñ ko jàppal bàyyil coow loolu tamit noo ko gisee coow yooyu bëri na lu muy am defan yi xam nga loolu laa lay wax làmb ak coow ñoo ànd gis nga yaa de cela un an xuloon naa ak benn waay boo xam ne ci làmb ji la bokk ne ma Thialis dootul tëgg làmb Mm. ma ne ko dox mu ne ma parce que dafa perte temps ma ne ko ma ko la ñu dem li ci kanam rawali bët ma ne ko nit aussi day reculer pour mieux sauter loolu laa ko tontu ne ko peut-être que yéen di ngeen gis nit doo leen xam nit ngeen yaakaar nit dootul tëgg làmb ma ne ko nañ dem bi ñu bi ñu bi ñu taxawalee combat bi boobu maa ngi tudd feebar mais dama woo waa ji ne ko ah diw mu ne ah ma ne ko yaa moo ne woon diw de du tëgg ka làmb gis nga de mu ne ma non ci ay raison sur donc loolu moo lay woon ni làmb ak coow ñoo ànd mais maintenant c'est vrai que am na ay mbër yoo xam ne dañuy dem benn moment aussi il faudrait que promoteurs yi aussi di tenir seen ay engagement vis-à-vis mais aussi xaalis kenn du ko fort dañ koy liggéey parce que nit ki su la joxee xaalisam xamul ndax yow am nga assurance xamul ndax dara donc loolu laa lay waxee ni promoteurs yi dañ leen war a delloo njukkal maintenant promoteurs yi aussi ñoo war a imposer les lutteurs des assurances vie parce que mun jox làmb mbër ay millions mu dee da ngay perte donc il faudrait que mbër aussi di am assurance vie ñuy xoolaat ñoom aussi seen ay structure jëmb seetaan naa benn débat bu intéressant euh, à Walf entre ñoom Burxaan ak yooyu mais il faudrait au moins que les structures de la lutte soient mieux formalisées parce que soo xoolee souvent leader bi rek fay nekk ñeneen ñëpp leader bi il encaisse ses millions mais <laughs> après c'est c'est pratiquement le désert c'est la galère alors que normalement tey war nañu dem lamb moment boo xam ni su écurie bi di gañee par exemple ñu ne Modou Lo écurie wala Balla Gaye écurie Balla Gaye la nekk wala Modou Lo écurie euh, Rock Énergie Modou Lo s'il a s'il a contrat de de de de de de cent millions normalement cinq pour wala dix pour cent war na dem au niveau de l'écurie mais su fekkee ni aussi que les promoteurs la non attends pour moi les présidents d'écurie ñemewuñu mbër mi wala ñemewuñu ténor bi mais ça pose problème ça pose problème. ça pose problème aujourd'hui une écurie comme Fass est tellement bien lu ñu bëgg ngay def parce que ñoom dañu am seen charte charte boobu dam koy respecté nga dugg dans la am na ay écuries yu mel noonu ils se sont bien organisés am na ñoo xam ne c'est des écuries yoo xam ne entre famille la mais doo dégg coow donc moi je pense que muy promoteur muy mbër mi muy ménager ñoom dañu war a bokk parce que ñoo bokk même direction bu ñu jëm kii day dox pour intérêt mbërëm kii promoteur bi day ñëw pour pour peut-être investir pour am retour d'investissement wala peut-être que peut-être day investir peut-être pour mu nekk genre support de communication mais retour d'investissement la ba léegi mbër bi day ñëw pour bëreel ko ñoom war nañu di déggoo. dëgg la li li may fi ñuy jeexle ay laaj la tontu rek lamb ji tey mën na nekk fédération. lamb mën na nekk fédération parce que lamb fédération la njëkkee woon. moom la njëkkee woon waaw mais tey man sama gis-gis su fekkoon par exemple dañuy def. une fédération dañuy def une fédération de lutte simple mais la lutte avec frappe ñu def ko une lutte professionnelle. lutte professionnelle waaw su boobaa dafay am une convention entre la ligue professionnelle parce que bu boobaa la délégation de pouvoir sera attribuée à la fédération mais il y aura pas de subdélégation mais il y aura une convention privée entre la fédération et la ligue professionnelle. loolu mun na Mhm. parce que c'est comme ça que ça se passe dans la dans dans dans, dans la américaine de boxe. ainsi de suite dans les autres ligues même par exemple soo xoolee le football professionnel ak la fédération sénégalaise de football ak la ligue. c'est la fédération à qui on a délégué ses pouvoirs maintenant il y a une ligue entre les deux structures mun na doon convention deux ans trois ans ça dépend du mandat de la fédération. mais fédération aussi mën na dem mais à une condition lépp ay xalaat la ay xam-xam la ñu réfléchir ci parce que ñëpp ñu boolee toutes les composantes de la lutte ñu xalaat ci. mais am na ñoo xam ne wax fédération mais soo leen laajee fédération bi nan la war a ko xam dañuy yaakaar ni mais attends dans la lutte il n'y a pas que les écuries il y a les écoles il y a les académies il y a le groupement des ménagers les amateurs <laughs> ah mais tout ça c'est un arsenal il qu'il faudrait au moins par rapport à des textes léegi nag textes nga conceptualiser ko. dans le dans un contexte boo xam ne avec le modèle sénégalais parce que lépp looy liggéey da ngay xool un modèle waaw. am na solo léegi euh, njiit yi moom dañuy jeexal tey seen ànd nga ci mu jiitee làmp xam nga man mooy li ma la wax sama euh, njëlbeen wax man suma dama am kilifa muy le ministre des tey décision bu mu jël dama ciy ànd xam nga lu tax damay xam ni décision bi mu jël moom mooy décision bu gën. dans l'intérêt du sport. ok am na solo kon léegi loolu leer na naa ñu defe naa de ànday ko mu fàll yàgg maar Modou man daa mel ni wax ji leer na li mu wax leer na ku ci nekk nag yaay xool nanga koy déggee parce que wax moom Euh, kiy wax li mu jàpp ak li mu jàpp noonu la war a demee noonu la ko waxee kon mbir yi noonu la demee muy Mbaye Sakh Diop li mu wax léegi am na expérience moom xam naa ne bu dee am na bu dee am na bu ci suñu morom moo ñu ko bu baax a baax parce que bëri lu mu ñuy teg ci ay raay des fois di ñu woo naan ñu defal ñi def nii te loolu defe naa ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay wax fi ngay toogee ñu koy remercier ci dalal bi ñu dalal tey ci këram di leen ziar di euh, gërëm aussi askanu làmb yëpp. di gërëm aussi ñëpp ñi nga xam ni toutes les composantes la lutte parce que ñoom ñëpp dañu fi nekkee benn euh, objectif la mooy développer làmb ji muy ko mi muy amateur bi muy promoteur bi muy manager bi muy responsable d'écurie bi président beeg ñëpp ñoo bokk donc ñun dañu war a suñu waar defar suñu làmb